Ah, sama teewaay fii rek mooy ñëw support euh, président Macky Sall mooy support Sénégal may wax ni li fi xew démb ak tey jii ëpp na tool ndax sénégalais yi génn nañ sénégalais yi kontaan nañ sénégalais yi happy nañu leket nag dafa defu lugan pep mënuñoo am ku tane Macky Sall fii ci Sénégal mooy président tous les sénégalais mu ñëw ci bés bu am solo bii nii muy nation jeunique war fi yëkkati kàddu tey kàddu boo yu am solo yoo xam ni njëriñu Afrique la rawatina njëriñu Sénégal ñun nag li ñu def mooy dañoo ànd ak président Macky Sall ci ni mu yoree Sénégal moo waral sunu teewaayu fii tey ndax nag ku dëkk Amérique vingt-huit ans jëm vingt-neuf ans xam nga lu baax ak lu bon Sénégal nag ñun duñu def lu dul di ko bëgg di ko support fu ñu mën a toll ci àddina rawatina ak président Macky Sall bés bu rëy bii mu war a wax tey jii ci Nations Unies ñu taxaw fii di ko support lii rek moo nu fi indi. non extraordinaire moom la wax léegi moom laa wax léegi def na loo xam ni tey gën na sigil Sénégal tey li mu wax tey ci président yi gën a rëy les pays puissants ci lañ ko doon séenoo tey mu ñëw wax ko ñëpp la waxal waxal na Afrique yëpp waxal na sax le monde entier. donc euh, duñ def lu dul di ko féliciter ñun Sénégal certains des sénégale ñoo xamul le président Macky wala boog nga xam ni am na ñoo xam ne nag xam nañ ko sax mais euh, dañu soxor dañu haineux am na ñoo xam ne haine la ñuy waxee am na ñoo xam ne tey suñ leen wàcceeloon sax euh, yonent bi sax ñu am ñu am nuñ koy ñu dingat ko voilà ñun dañuy diingat rek. discours bi def na ko rek comme na mu ko daan defee ndax tubarkalla macha allah tey président. ci ñu ubbi discours yi la bokk ndax li ko waral moom moo di président unité africaine euh, muy lu nga xamante ne président bu nekk ñaan nga yàlla boo fi jaaree yàlla dogal ko ci yow te yàlla dogal na ko ci moom te lépp lu koy euh, firndeel mooy waxam yëpp mooy lu jëmale àdduna bi kanam lu indi jàmm ci àdduna bi gis nañ yi nga xamante ni osé na ko def na ko ci biir réew mi ci conflit bi nga xam ne amoon na ci Ukraine ay ñoom Poutine ak ñeneen yooyu yëpp defe naa du président yëpp ñoo ko osé def ko Euh, président Macky Sall président bu ñu respecté la ci àdduna yóbbu na turu Sénégal fu nekk nekk nit ku ñu naw moo tax tey discours bu mucc ayib bi mu def àdduna yëpp rafetlu nañ ko te defe naa ni ñëpp wax bi benn la ñëpp ci bég le président de la République quand il intervient dans les instances aussi bien nationales qu'internationales il ne lui il ne rate jamais l'occasion en tout cas de démontrer euh, l'emprise et la prise qu'il a sur les événements dans le monde Et je, suis, je me réjouis qu'il ait eu l'occasion de, de, de, le faire encore cette fois-ci. Et cette fois-ci avec une empreinte particulière parce qu'étant le, le, le, secrétaire chargé de la... De, le président en exercice de l'unité africaine. Donc, euh, et je crois que premièrement, il ne s'est pas en tant que président de l'unité africaine, il s'est beaucoup intéressé aux intérêts de l'Afrique, et de sa position dans les institutions, en tout cas qui représentent euh, euh les nations du monde. Et, je crois qu'il nous a très bien représentés, qu'il s'est fait l'avocat euh, qu'il a toujours été pour l'Afrique avant même d'avoir été le président en exercice euh, de l'OIA. Et maintenant qu'il l'est, il est encore en train de démontrer avec force, en tout cas, la nécessité qu'il y a Euh, pour les Nations Unies en tant qu'organisation regroupant les nations du monde de faire en sorte que l'Afrique soit représentée telle qu'elle doit l'être et qu'elle soit vue telle qu'elle telle qu'elle doit être vue avec toute la force qu'elle représente dans ce monde-là. jërë ngeen jëf mbokk yi yéen TV senego.com gis nañ bu baax tey depuis démb président Macky Sall egsi na fii ci United States of America tey nag la amaloon discours bu am solo bi nga xam ne amoon na ci General Assembly bi doon am Nations Unies discours bu am solo bi mu def ci euh, taxawaayu Afrique ci àdduna taxawaayu g taxawaayu ba ñu mën a gàntal li nga xam ne moo nekk xeexum terrorisme ci beneen wàll ga doomu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci biir euh, ñëw nañu aussi naxarlu di wan seen mer ci jàpp yi nga xam ne jàpp nañ ko ci lu ñu jàpp ne yoon doomu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal foofu noonu ku ci mel ne Abdou Karim Gueye xurum xaq ak keneen ki nga xam ne moo nekk Cheikh Omar Diagne ak yeneen yoo xam ne ñoo ngi koy réclamé ngir bëgg justice amal ko installation assemblée nationale bi ñeneen ak ñeneen ca beneen wàll ga ñeneen ñi nga xam ne ñoo fàle ci nguur gi ñoom aussi ñoo ngi doon rafetlu teewaayu président Macky Sall ak discours bu am solo bi nga xam ne def na ko fii ci Nations Unies lépp pour sigil doomu Afrique mu nekkoon Seydina Aliou Ndiaye fii ci New York pour Sénégo TV